ñëpp bàyyiwul kenn di leen xamal ne li ngeen wax dégg nañu ko dañuy buñ demee ba ca fan yay mujj nga xam fa la ñuy def évaluation danañ xool luñ ci def ak luñ ci defut wóor nañu ne nag pas-pas bi ngeen am ci def kooku moom xam nañ ko bu baax ndax kenn ku ci ne lii def nga ko budul benn budul ñaar di am ci pas-pas kon loolu ñu ngi leen ci gërëm bu baax eh, damaa ñuy xam luñ ci def ak luñ ci di leen xamal na itam bis bi ci bis yi mat a gën a jàpp la bokk amul benn bis boo xam ne bii ci yoon wi ëpp na ko ci solo ndax sëriñ Touba moo lu am solo ci Touba rek moo ko def lu am solo ci mouridisme moom la lu am solo ci lislaam lu ci bari moo ko def leneen li ci des ay bokkam ñu nekk ci waawoon ak ñeneen nekk jàpp def jàpp ci lañ man doxin woowu mooy wi nga xam ne moom la ñu xam ñu di ko doxe waxtu wu nekk dara du ca manqué kon bisam bés bu ñu war a boole ci programme yi la am na kuñ fi laaj léegi mu ne bokkul ci programme ci programme yëpp la war a bokk lu ñuy def ci màggal yi li ko def ci bés yi di ko def ci bésu Sëriñ Tuubaa yi bés bu ñu war a defal Seex Masàmba la te ku ko def da nga def lu neex Seex Mas lu neex Sëriñ Tuubaa ndax moom am na fu mu tegoon Seex Masàmba li noonu la demee léppam la mbokkam la ci wàllu ndey mbokk la ci wàllu kokki yi ci wàllu baay mbokk la ci wàllu kokki tam ku baax kokki ku nekk mbokk nga ci moom dañ mata am ante ceebu moom mu ñu ko tuddee ku ñu ku ñu xam ci kokki la kon fa tabaarakallaahu moom mooy mooy mooy mooy léppam gannaaw bu loolu wéyee itam ñu seen xamal ne ni mu wax léegi ci wax ji euh, am na solo lool ndax euh, dafa dafa defoon ko fonk sëñ Touba bëggoon ko lool ba tax sëñ Modou Moustapha bi mu fi nekkee mu jàppe ko ne sëñ Touba di ko jàppale ci lu baree baree bare di ko taxaw lu baree baree bare sëñ Modou Moustapha moom it joxoon ko cër bi nga xam ne war na ko ko jox ba mu mat sëkk lépp nag loo xam ne euh, daanañ ko def sëñ Touba ñoom la koy boole moom sëñ Modou Moustapha sëñ Fallou ñoo ëpp lu ñu leen di boole lu ñu leen di tudd ci ñu ànd ak sëñ Massamba waaye sëñ Touba leen daan leen wax ne Moustapha bu leen jàpp ne bu leen ko jàppee leen jàpp leen ko seen way jur seen way jur la de na leen ko ba tàyyi kon doxin woowu mooy wi nga xam ne moom la sëriñ Touba doon doxee ak Cheikh Massamba waaye sëñ Modou Moustapha ak sëriñ Fallou noonu lañ doon doxee moom bëggoon ko lool bëgg fonk ko lool mën koo teral lool tubaarkàlla moomeel nag moom dafa jëndewul dara loolu ak bi rek la soxla ak ngërëmul sëriñ Tuubaa rek moom la soxla soxlawul leneen loolu ci la ci la jeexal dundam képp ba mu jeex tàkk njabootam mu sóob leen ci loolu te dara soppiwuñ ko ca ba léegi ca ka ci ka ci mag ba ci ki gën ndoon ndaw taxawaay yooyu lañu am loolu mooy doxinu Seex Masamba kon bisam ku ci jàpp ba mu mel na war a mel wóor nañu def nga lu neex sëriñ Tuubaa def nga loo xam ne gërëm na ko te da nga ci am payu payu yàlla ak payu yonante bi ak sëñ Tuubaa ci bu tool loolu kon li ngeen diyee lépp ngeen fexe ba mën ci koo matale la ci ëpp lépp ngeen def ko xëy na def lépp ba mu mat jafe na waaye nag la ngeen mën ngeen def ko loolu ñu ngi leen ci gërëm bu baax gouverneur dirigé nga ko dirigé bu baax kenn ku ne wax nga ko laaj nga ko ak préfet ñu taxaw taxawaay yu rafet ba lépp mën a jàll jàllin wu leer woo xam ne kenn ku ne xam na ne lii benn CRD mënu ko gën a tege ci yoon kon ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen sant bu baax di leen ñaanal yàlla bu baax ñu fekk ko ay déwén yi déwén te bii ñëw itam mel na ay morom ma mel mbaa mu gën leen a yéwén loolu ñu ko ñaan bu baax di leen gërëm bu baax di sant itam délégation bii nga xam ne moom laa àndal te ñu am pas-pas ci taxawaay bi kenn ku ne bu sañoon la ñuy wax moo koy waxeel boppam sax ndax yéen a juñ ci am ak bëgg-bëgg bu ñu am ci Seex Masàmba ak taxawaay bu rafet bu ñu am ci sëriñ Maamoor mi nga xam ne mooy xalifa Seex Ma Sàmba te eh, mate ko sëkk am taxawaay bu rafet ci ñëpp bëgg njaboot gi lool fonk leen lool man leen a teral lool doxinam yëpp ci loolu la ko jeexal takk kon ñu ngi koy gërëm bu baax moom Seex sëñ sañ Maamoor di ko ñaanal yàlla mu yàgg fi lool ba li mu yéenee liggéeyal Seex Ma Sàmba mu liggéey ko ba mu mat ànd ko ak nun ñëpp yàlla mën na ko yal na ko yàlla def ñu ngi leen di gërëm bu baax itam nag ci taxawaay te sant itam nag eh, état bi ak yëpp yi ñuy taxawaaye ndax lépp la yëfu état la dara war a def kon ñu ngi sant état bu baax a baax ñu gën a góorgóorlu gën ñu jàppale gën a jàppale eh, taalibe yi gën a jàppale événement yi am ci wàllu diine ndax loolu lu am solo la fa tabarakallahu kon yal na yàlla fay leen yàlla defal leen tawfiq ak taysir defal leen xéewal ak mucc loolu yomb na yàlla lool yàlla na ko yàlla def ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala dañ ko wax aussi mu jéem a euh, yombalal ñi ñëw wante yombalal ñi ñëw nag taxul nag ñu bàyyi lépp mu jàll waaw yombalal taxul taxul nga bàyyi contrôle waaw moom loolu dañ ko yombalal mais nag du taxu aussi ñu bàyyi contrôle ndax euh, bu xew-xew yu mel nii amee ñuy gàmmoog ñoo tax jëm ñooy ànd yow yaakaar naa loolu aussi ñu jéem koo kii région médicale dañ ko wax pour poste avancé yokk garab yi dañ ko ko wax service d'hygiène aussi moom wax nañ ko léegi élevage wax nañ ko léegi commerce aussi moom dañ koy ñaan nekkoon nag mu gën a yokk euh, contrôle ndax aussi jamono ji bu tolle nii amoon na prix yi mënuñ ko yokk wante nag amoon na fi benn màggal bu fi amoon mu ñu koy fàttaliku daaw bu am xaw na ñaaw trop loolu yaakaar naa aussi ñu jëm ci taxaw ba su kenn du téye lu xam ne produit yoo xam ne moom la nit ñi gën a soxla ñu téye ko ba mën a prix bi gën a ba ba prix bi gën a mën a yokk yaakaar loolu commerce dina ci liggéey ak lu xam ne nag lii baaxut produit yoo xam ne dafa mi ñu gën ci taxaw ci contrôle bi ndax waxtu yi leen nit ñi mën a am temps pour mën ko pour mën ko jaay te DMTA nag dañ saisir ministre de l'intérieur dañ ko bind laata ministre de l'intérieur wax ko na ko daaw léegi léegi lii nga indiwoon ci màggalu Daaru Karam bi ñoom i ren it léegi lii leen soxlaat loolu bu rek bu ñu joxee léegi léegi yaa xam ne ngoon gën ko mën a bind CSA aussi moom it dana saisir ministre développement communautaire moom ma yor affaire bi crois que loolu daalan amoon di sant ah ooye forêt moom it aussi dan yéenay bind lettre jox ko pour won ko na ko li lii ngeen soxla ci matt ou bien lii ngeen soxla ci këri wax na sa ngeen jox ko chef de bi ne naa yokk leen ko préfet pour mën a yëg ne bi départ na parce que lettre bi day départ Mbacké ñëw fii fii lay déparé di doog ko yónnee doog ko yónnee Dakar ñun nag bu ñëwee ba fii ñun kii bu koy yónnee moom dana ci jox benn copie ñu xam ne kaat lettre bi egsi na fii mais nag pour mu xam ne préfet xam ne ma nga bàkke moom moom ngeen koy jox waaw bu yaakaar naa daal loolu ma amoon sëñ bi di leen gërëm di ñaanal vraiment xalif bi mu gën fa yàgg lool di ñaanal xalif général day murit aussi xalif général Baye Fall di ñaanal xalif général yi ci Sénégal yëpp yàlla defal ñu jàmm yaakaar naa daal lu ma ci am solo waaw suñu région bi waaw ñaanal vraiment dañuy sàkk ñaanal rek ngeen ñaanal bu bokk ci région yi gën a développé ci Sénégal yaakaar naa loolu la leen bëgg ndax bu développé rek ñëpp su bopp waaw nañ yàlla dafa jàmm waaw te ñu dellu jàmm ci dëkk ba asalaamaaleykum mbokk yi yéen ñi nga xam ne yéen a baaxoo ànd ak seen bii di Mbacke TV à partir d'aujourd'hui gën nañ koo yaatal ci YouTube